asalaamaaleykum Mbacké ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér ci barkeb sëriñ Fàllu liggéey bi nga xam nag ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi te naka jekk ñu ànd ci te kenn jiituwu la ci it loolu ñu ngi la ci ñaanal yàlla nga ci taseek taw feexu sëriñ bi ak ndimbalam ak ngërëmam tey ji nag dañoo xëy si woon fii doon jën jëmbat ay garab garab ñu ngi ko tàmbalee ci rond point garage garas daara bi ba fii nii ci buntu kër gi waaw ba fii nii ci buntu kër gi juróom-ñaari eh, kilomètre la ñett ñett ak genn wàll wet gi ñett ak genn wàll wet gi fukki mètre yu ci nekk samp nañ fa genn garab def nañ ci tamit grillage yi nga xam ne ñoom ñoo koy protéger barki demb ak démb ñu ngi nekkoon fële rond-point gaaras daaru musti ba hôpital Cheikh Ahmadul foofu juróom-ñaari kilomètre la bëtug ndeyjoor ak bëtug càmmoñ foofu it fukki mètre ci nekk def nañ fa ay garab foofu ay garabu peltiform lañ lañu fa def incha allah suba corniche bi li ko wër xay yi nga xam ne bàyyi Faal yi jëmmatoon nañ ko fe am na ci xay yoo xam ne jot a jàpp suba incha allah ci lañ war a xëy lu toll ak téeméer 600 eh, xay ñoo ci manqué moom lañ bëgg a defar bu soobee yàlla buñ ca noppee it corniche bi nga xam ne mujjoon nañ koo def muy corniche bi jaar xayra wër foofu amoon na ay garab waaye garab yi tamit am na mu toll ci 700 garab. yooyu danañ demaat incha allah ñu remplacer ko buñ fa jogee it héliport bi nekk fële ci bundu kër sëñ sëñ Tuubaa gi eh, jaar noonu yaañ ka ba ci route nationale bi foofu trois kilomètres la foofu it danañ fa jëmbat ay garab incha allah eh, garab yi tamit eh, naka jekk at mu jot dañ daan def reboisement nga doonoon jëwriñ gi ñëw di ko teewe ren ji it yàlla def bi nawet bi jubsee ñu ne ren dañoo bëgg njëmbat gi ñuy def dañ ciy boole ay garabu meññeenteef nga xam ne dana am ker waaye dana dana def meññeenteef bi ñu xalaatee loolu ba am ci ndigalu suñu abibu ñu ne woon ren dañuy jël fexe ba Touba ñu jëmbat fi ay garab mango yu bari ñu defoon ci benn affice nag ngir taalibe yi jaayante ay garab mango ñu jëmbat ko fi biñ ko publier ci internet bi premier ministre gis ko jël affice bi yónnee ko ministre environnement na ko wool waa Touba ci kanam nga waxtaan ak ñoom ci lii xool noonu lañ ci jàppalee biñ demee ci ministre bi mu ci waxtaanee ak moom mu ne sax Sénégal dañuy def at mu jot ñu def bisub garab kon ren li mu fas yéene mooy bis boobu ñu defee ci ko Touba la tax ñu di ko def it euh, jëf ji nga jëf ci Touba ci kanam la ndax dañoo wax ne bari na dëkk yoo xam ne dañuy def reboisement di jëmbat waaye nag buñ jëmbatee bu déwénee dafa fekk dara dañoo gis ne Touba ca kanam at yi weesu garab yi ngeen jëmbat yëpp biñ ñëwee bu doon téeméer quatre-vingt pour cent yëpp jàpp na te loolu bu ko Touba ci kanam ne am yow ndax bi ñu jëmbatee koko yi yaa yabal sa waa kër ñu di ko saytu boobaak léegi duñ yokk duñ tay ba garab yi jëmbat nañ ko ba mu màgg bañ ba mu amee doom bañ indil la ko kon loolu yow la xayyee yaa fa yabal sa waa kër heure bu ñu xëyee ñu nekk fa di ko roose di ko toppatoo ba mu màgg kon ñoom buñ demee ba gis loolu kon sa jëf rek moo waral lii ñu ngi sant bu baax di la gërëm liggéey bi tamit dañ ko ànd ak waa eaux et forêt ñuy jàmbaar lool eaux et bu Mbàkke ak bu Touba ñoom duñu noppalu guddi duñu noppalu bëccëg ñu njëkk xëy ñoo ñu mujjee wàcc ñoom biñ tàmbalee léegi ministre boole ñoog ñoom indi nañ ay garab indi nañ ay grillage ba pare ànd ak ñun ci terrain bi ñoom ñooy natt ànd ak nit ñuy jëmbat ak waa direction cadre de vie ndax mooy xëy ndaw ñi ñi nga xam ne dañoo féete ci gox bii nii ministre bi daf cee tànn lu tollook juróom fukk indi ko ci Touba ca kanam ngir ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ci diirum ñetti weer te wax na bu ñetti weer yi jàllee buñ ko soxlawaatee mën nañ leen fi affecté ñu ànd ak ñoom liggéey bi loolu daal mbàkk lañ ne woon nañ la koy leer nga gën ñoo ñaanal ñun ñu gën laa ñaanal bu baax ci liggéey bii nga xam ne Touba Ca am na ci ndam te ndam yi lépp delloo nañ la ko mbàkk ñoo ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf mbàkk sëñ Fallou yëf am na solo de sëñ yi am na solo moom mi de Mbàkke ci ku ci la dem na ba tuddee doomam Touba Ca Kanam <laughs> moom mii ku sori ci yëf yi la mu koy xanaa ci daanaka dañuy wax ne ci moom la tàmbalee sax moo xalaat xalaat bi bi ko mu ko lancé ñu gis ne lu am solo la ñu ànd ceeg moom te itam kàddu yi suñ fal ni ko tëralee xam nga lu tax mu kiimaane maanaam ku ko dégg war cee royee sëñ moom bi muy def sëñ tubaa rek a tax mu doon def waaye nag kuy liggéey sëñ tubaa da ngaa bëgg ku la ci roy te moom nii nga ko waxee moom ba mu ci noppee la ci noppi xanaa di yi ñi nga xam ne ñoo ci nekk rek ngir bi set ñuy gën a góorgóorlu te xam nañ koy téye rek loolu moo war cee warteefam waaye lii nga ko leeralee nag wax dëgg yàlla am na solo ndax képp ku dëkk bi ñor sëñ Tuubaa ñor la bu déggee lii fii sëñ bu teg tànkam dana fa bëgg a teg tànkam man sax wax naa sëñ ba tàyyi na ko ñoom dama leen di romb ndax takkusaan lu ci ëpp bu muy dëpp damay fekk ñuy roose te ay at la te gis ñu sax ca te sallallahu alayhi wa sallam dana woon xayrul amali maa kaana diima wala xal la nee jëf la ci gën mooy lum néew néew na sax rek nee na bu fekkee néew na yi na sax rek rawatina nag lu toll lu saxal ko ba nii nga ko waxee yitte ji nga xam ne sëñ bi biñ ko waxee ne ko yaa ci jiitu yitte ji ci njëkk mooy xam ngoo xam ne sëñ lu lum jiitu mu am genn garab la jël yëkkatee ko fii yóbbu ko sëñ Muntaxa mu ñaanal ko ci doo ko indi jëmbat ko yooyu pas-pas nag lum gunge faaw mu mel ni nga ko waxee. garab garab boobu noonu doguma la gi mu joxoon suñ muntaxaa. waaw ku mel ni noonu lañu def fii 700. ah gi mu joxoon ñu ah kon dañ kon day daal di def. waaw dana jàll alaaji gay moom moo li ko dalee fii ba dugg bii nit moom dana defar grillage dañu koo ñaan moom mooy defar grillage ñu indi garab yi jëmbat ko lu may dugg léegi laa ko woo mu ne moom mu ngi taxaw ko koy defar ni noppi rek ñëpp ñu déggee ko noonu képp ku bëgg a soññ rek sa kàddu yu soññ na la bi sa kàddu yi rafetlu ko lool ak ñii nga àndal ñëpp nag waaw wax dëgg yàlla waaw effort yi kay moom des na leen ñaanal ndax ndax ñoo yore environnement bi bu doon toll ñoom ko dara du ko jar te garab moom dëkk bu mu ñàkk rek lépp ñàkk na fa waaw moo tax sëñ bëgg na bu baax a baax ci taxawaay bi nee na seen tur wi wuyu ngeen ko Tuubaa ci kanam gi ngeen wax day ci ngeen nekk ndax lii day ci kanam la ñu ngi leen di gërëm te leen ñaanal nee na sëriñ Tuubaa day moom kuy liggéeyal sa bopp rek ngay liggéeyal nee na li maam Cheikh daan wax rek jëf jël nee loolu moo nekk ci sëriñ Tuubaa rek sëriñ Tuubaa daal moom jëf jël la rek jërë ngeen jëf waaw amiin